yéen ñi safoo Dakar Buzz TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey nag ñu ngi fii nga xamante ne mooy Pétancelle jéemoon a xool ñi nga xam ne dañu toj seen magasin yi li nga dooreek barki démb ak démb ñu toog fii liggéeyuñu dañuy jéem a xool rek lan moo waxal loolu ak lan moo waxal toj beek lan moo waxal toog bi ñu toog fii di ko ñaxtu ñu dem xool ñoom lan mooy seen problème dellu siwaat sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si maa ngi lay fay bu baax. tur bi naka la. man pro Sonko may woowee. pour Sonko da doon daan fii sa doole ci pénitentiaire. dama doon daan fii sama doole yor fi place di placer ay bagages. ñu gis ni eh, dañoo toj li nga xam ne mooy magasin yi lan moo waxal loolu. di ko naqarlu nag si àdduna bi yëpp waxuma réew mi de lu tax ma koy naqarlu mooy ñun sénégalais ñun ñi nga xam ne dañoo waroon dooleel jox nu ay entreprise yu nu mën a nekk di liggéey wala nu jox nu ay financement. yu nu war a mën a liggéeyal réew mi mais soxna si ñii dañ noo def lu metti dimanche nañ ko yëg dimanche nañ ko yëg dañ leen di décarpiser lu doy ni ay nit calculé woo ba xam danoo def prêt banque danoo leb ay marchandises yu jàmbur danoo yor danoo yor aw seer nga danoo yor facture yu jàmbur yow woo dara da nga ñëw rek ni berte nga bëgg kenn bañul bertee mais ñun moomu munu bertee laaj ma lan moo tax moo munu bertee ñëpp a bëgg lu baax mais ñaata doomu aadama ñoo nekk fii tey doon ay jeunes amuñu 40 ans état waroon noo dimbali de mais dimbali wuñu ñun si suñu doole bopp nañuy xoslu di joxe dépasse di fay suñu jàng doom di faju parce que feebar mun na ñëw ëllëg mais bu nu toogee di liggéey bu nu feebar dalee dañuy am courage ni am na la nga xam ne bu nu dalee war nañ ko see mën a faj fii nañ ko mën a amee li gën boo yëkkati nit dañ ko fii laa lay yëkkati fee laa lay yóbbu. joxuñu leen délai ni jour temps dañ leen di yëkkati. sunu délégué wax na ko xam nga délégué wax na ñun gisuñu du sommation da ngeen jot da jot jotuñu nu def ko premier jour dimanche ñu ñëw dolliwaat ni leen bu leen fu fekkee suba midi. incha allah li des lépp ay jug. bi ñuy dajji dañ leen fekk ci magasin yi ngeen di jaay. non non guddi nañ ko wax. mais jot ngeen dindi seen marchandise avant ñuy daaj. dindi si marchandise yi am na ka nga xam ne marchandise am jëndiwu ko woon mais daleen leen ñaanoon ni leen may leen ba ba suba ma jënd li nekk sama place lépp kooku ba léegi laalut yaa ngi may dégg même waxuma la magasin mais tablier yi gis nga Petersen benn yee entreprise la moom nekku si de ay nit ñoo siy nekk amaana sax du na ay mbokkam ñooñu noonu nekk ca ñooy rang ay nit ya nga xam ne dañuy yóbbu seen kër réew mi nekk sa réewu Sénégal bu fekkee ñun dañ see dëkk te amuñu si benn accès amuñu si doole lu dul dara xew rek nu ni kaa leen te wutali baa doole ba kenn du fi jël doomu autorité di ko yóbbu si ay oto wala di ko solal ay tiset parce que ñun dañuy duma un jour ñëw nu ni kaa nu ndax leen dina leen defal nangam dinañ leen jox ay financement dinañ leen dinañ leen dinañ leen loolu amul. gannaaw bi ñu leen yëkkatee fii joxuñu leen benn place boo xam ne rek fa lañu leen di yóbbu. li gën a dee sax avant place boobu ñun daan ko ñaan balaa nga ñuy toj may na ba événement bi jàll. parce que soxna si semaine bii di ñëw dinañ dugg si koor may nu wàññi suñuy bagage aw ma lu may maye 4 avril ndax du 4 avril sax du am 4 avril nag comme amul yéen ñii mënoonu leen may. parce que BRT bi day avancé BRT bi day avancé waa nag réew ma nga xam ne yow da nga see dund mënoo gis sa bopp si réew mi tey bu ma posé sama bopp lan la ma état defal man xaw ma ko mais bu ma bu ma état posé question lan laa ko defal ma tontu ko ay tontu yu bëre benn nee ma lan état lépp lu mu soxla man maa ngi si biir mais bu ma feebaroon tey jii nu yëkkati ma fii bu ma demee hôpital xam nga principal public la. la daan teg public la Abbas Ndaw public la barki yàlla man ma bokk si public bi bu ma demee bu ma yorul xaalis su ticket duñ ma jël si couloir bi laay fanaan kaa leen jël ko wala kaa leen dagal ko ticket te man lu nekk def naa ko si compte état damay fay impôt damay jënd ceeb am na lu ma def si état damay jënd gasoil am na lu ma yor di dawal léegi-léegi ala sama revenir lu dul toroxal nu boo jaaree si gaal yi nu ñu xale yi waru noo dee si gaal yi noo dem waru noo nangam xale yi nangam am nañ toog Sénégal barki alxuraanu karim dama la wax dëgg Sénégal secteur informel bi ambulant bi moo ëpp fuuf ñiy liggéey si dëkk bi gis nga bu dëkk bi doxee dëkk bi dal nit ñi am fu ñu jàpp tablier bi di liggéey talul kenn indi rakam indi jarbaatam toogloo ko mais bu dëkk bi yëngoo nit ñi amul fu nu nekk parce que état yóbbuwunu soxna si demal zone industrielle yi amul ay nit dan fay rang dan fay rang journalier mais ñun xoolal nice ta maa nga seet mais tablier laa la wax bu buñ ko bàyyee mu nekk si jàmm kenn buggul naan bu na sañoon sénégalais dàq si monde bi mais da ngay liggéey loolu da ngay liggéey ay entreprise da ngay toog barki alxuraan karim amul benn bâtiment bu état Sénégal tabaxal ay nit ni marché bi kaay leen ma dugal leen fi ay bailleur nañu wut ay ay nit ñu ni carrément pare naa pour tabaxal leen centre commercial mu pare mu ni caabi ji maa ngi koy vingt 20 millions caabi ji maa ngi koy jaayee 15 millions te ban koy mbubboo ña nekkoon si table yi nañ doon wax dañ leen fii jëlee jox leen fee ku mënul dajale mille francs noo koy jaayee caabi. waxtu bi ba léegi yéen joxaguñ leen fenn foo xam ne fa ngeen mën a placé wu pour continuer seen jaay. kun nu am dal kun nu am dal gis nga boo gisee police yi taxaw fii yaakaar ni chaque jour xam na ni carrément lu du yoon. police bàyyi seen activité génn camp bi ñëw taxaw di ñu surveiller c'est comme si que ñoom li ñoom war nanoo comprendre li ñu def ñii baaxut parce que lu tax tranquille nu parce que jàpp na ni tôt ou tard rek dara day tàkk te ñun duñu taalkatu réew talunu ko fii nañ dëkk amu amuñu ñuy daw amu amuñu passeport amuñu ñuy daw su suñu bàyyi fii nan nekk dañuy xaar dépasse boo taalee réew moom foo jëm kun dal bi kun li sécurité nii lii du sécurité xam sécurité mooy lan nga jël ndaw ñi nekk fii yóbbu leen ay espace nan am benn espace a ngi nii si Félix Obier bu yaatu kaa leen defal foofu ñun sax laaju nu état sax euh, defaral nu nan ni site baa ngi nii nu ñu defaral suñu bopp suñu moyen suñuy propre moyen beneen espace a ngi nii mais del xool kan nan kay jox nan nu boole si réew mi nan nu boole si réew mi ay ñu am joma nekk fii amul kofi fi weex wóor na yàlla doo fi gis paa maa la may lii pour nga gis paa pare pour liggéey dan dañuy dooleel mais toroxal bi moo ëpp si réew mi waaw toroxal bi mais li may bëgg a wax nag élection yaa ngi ñëw parrainage a ngi ñëw sama yaay ak seeni yaay sama baay ak seeni baay ak ñi nga xam ne am na lenn la nga xam ne jox nañ leen ko bu leen kenn freneel parce que seeni doom tey jii lan doon joxe dépense bu doon 1000 francs la mënunoo génnee juróom fukki tey parce que li nga denc ngay lekk ña ko doon jàpp réew nag mënuñu koo jox si ay defar na stade defar na terre defar na berte suba nga romb sa kër yoroo saako ceeb. Assane commerçant nga woon fii ci Petersen. waa commerçant laa fi ci Petersen. loo fi doon jaay. Euh, ay bagages yu jigéen rek comme Petersen bagages yu jigéen moo fi ëpp lu ñu fiy jaay ay dàll saak bijoux affaire yooyu noonu. naka nga jotee information bi ak kañ nga jot ni kat dañuy war a daaneel fi nga xam ne mooy seen magasin yi. information bi nuñ ko jotee maanaam lu bette la ndax euh, dem na ba xam ne ñun ñi nekk ci table yi magasin yi jotoon nañ seen information bu yàgg. mais ñun ñi nekk ci caabi ñun dañoo yéex a jot suñu information jàpp nañ ne war nañ war nañoo mën a ñaan ñu may ñu korité wala tabaski pour ñu bàyyi ñu fi ñu mën a eggali suñ suñ suñu liggéey mais defuñu ko danoo xëy xëy rek indil ñu indil ñu seen i affaire bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a saccager fii bëgg koo dajji ci ñu xam ne ni euh, dañuy xuslu di di ut lu ñuy yóbbu seen kër c'est tellement loo xam ne ni lu métti la ci xol lu métti la ci xol information bi dafa dafa bett ñu fi nekk ñi nga xam ne ñoo fi nekk di di ay tablier ak borom magasin yi da leen a bett bett bu xam ne ni kenn mënu koo comprendre lu ne xëb rek dal seen kaw la quoi. ñu ne leen BTR bi moo fi jaar donc da ngeen non waa xamoon na ne beteer bi dina ñëw Petersen fii mais mais information yi nga xam ne war nañ koo mën a yëg dafa dafa bett ci ñun danoo xëy xëy rek affaire yi daana suñu kaw mu nekk lu xam ne ni loolu bett la lu xam ne ni kenn mënu ko expliquer kenn ñëpp la bett ñëpp. ba léegi am na autorité bu fi ñëw pour wax leen ni kat dinañ leen déplacer wu teg leen ci beneen bërëb. non fi benn autorité ñëw fii amul benn autorité bu fi ñëw. wax wax wax wax wax ak askan bi fi nekk plus de 1500 jeunes ëpp na ko sax ñoo fi nekk di xuslu magasin yi day jël plus de vingt personnes yoo xam ne ci la ñuy liggéeyee lu gars yi bëggoon mooy ñu may ñu fii ak korité ñu liggéey loolu la gars yi bëgg korité ak tabaski ba eh, eh, ouverture ñu ñuy liggéey ba nit ñi liggéey après ñu xool ñoom lan lañ bëgg a def fii ñu xam après ñoom ñu mun ñoo mun ñoo mun ñoo dimbali ba jox ñu ay places yoo xam ne dinañ ci mën a liggéey. ndax jamono ji amoo leen benn place bu kenn amu fi place ñëpp ñu ngi ñii boo xoolee gis nga ñuy toog. gis nga ñuy toog ci ginnaaw ñëpp toog ndax amul kenn ko xam ne ni boo ñëwee di nga am foo mën a taxaw pour mën fee liggéey ndax def nañ ko ay barrage def ko lu xam ne ni doo mën a comprendre daal doo mën a message ngay lancé ki nga xam ne mooy autorité ki yor réew mi suñu président merci suñu président di Macky Sall nga xam ne saa su ne mi ngi mi ngi xool nan la mën a jàppale ndawu réewam pour ñu mën a góorgóorlu mën a liggéey mën a jariñu mën a mën a mën a ndax loolu rek la bëgg Sénégal émergent kon na bu ne Sénégal émergent jeunes yi tamit ci lan bokk lu mel ne jeune Petersen lu mat plus de deux mille personnes wala mille et quelques personnes bari nañu kenn mun ko compter jigéen ñi xale yu góor yi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp a ngi fi pour bëgg am ci luñ jàpp kon loolu euh, moom moom war naa mën a ñëw waxtaan ak ak jeune Petersen yi ndax jeune Petersen yi liggéey moo leen tax a jóg dara taxu leen a jóg sàcc ñu fenn ñu secteur informel bi loon bokk di def li développement ci réew mi ndax fii di Petersen nit day jóge ba Mali ñëw ba Gambie ñëw Guinée Bissau ñëw fu ne la nit di jógee ñëw bu ñëwee ñu jaay ko bagage yu ñu koy jaay mu yóbbuwaat gagné ñooñu bu ñëwee te amatul luñ fi jënd eh, di ko yóbbati eh, eh, mun na ne ne mun naa ne ne économie mun na wàññeeku ndax fii li fi xëy di génn kenn xamul nu mu toll ñu xëy saccagé ko nii joxoon nit information xam nga bëri na lu xam ne ni daal autorités yi war na noo sol seen daal ñëw waxtaan ak askanu njiitu PTSN di suñu délégué mi Dame Badiane Dame Badiane lu mu bëgg mooy fii yëpp ñu jaaykat yi ñu tenu ñu am bonne condition comme que BT bi jaar na waa ñu utal ñu fu mën a nekk ñu bàyyi ñu ñu lal ñu liggéey loolu daal mooy mooy mooy mooy mooy wax ci quoi monsieur le président Macky Sall ñu lay lancer euh, un appel solennel pour mu ñëw xool zone zone zone marché Petersen xool nu leen di jàpp xool nu ñuy jàppale pour ñun ñëpp ñu mën cee gis suñu bopp loolu daal lañ koy ñaan quoi loolu daal lañ koy ñaan xool daal fu nga xam ne nii site yaa ngi fi ambulants war nañ faa mën a dugg pour mën a toog liggéey mu defal ñu ko quoi lool lañ bëgg. maman maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Salaba. maman Sala da doon daan sa doole fii ci Petersen. waaw Petersen ñu def fi vingt ans. nga fi doon jaay. dàll dàll laa fi jaay. Euh, ba ñuy yëkkati jotoo benn rumeur ni kat jour dimanche bi dinañ ñëw yëkkati table yi fi ne. wallaahi billaahi wallaahi taala yëkkunu benn rumeur dégguñu benn rumeur ndax ñun xam gëm nañ BRT na xam nañ ñun BRT dina ñëw. loolu moom werante wuñu ay BRT moom werante wuñ ko na xam nañu projet la bu taxaw mais tamit ay doomu aadama fu ñuy daan seen doole vingt ans boo ñëwee di leen yëkkati war nga leen sax mën a woo concerté leen waxtaan ak ñoom may naa leen délai de jour tel dinaa leen yëkkati wala accompagner naa leen nangam bu ma leen yëkkatee nangam mais loolu lépp amul dimanche sunu kër yi ban fay jóge taxi laa jël 5000 laa fay ba fi dañoo jékki-jékki ñu woo ñu ne kaay la ñu ngay dajji ñu ngay dajji fii lii guddi la ko dindi lii nga gis ñëpp la ko dindi ñëpp koy dindi jotoon nga ranger say bagage jotuñu ranger dara jotuñu ranger dara am na ñoo xam ne seen i bagage ba léegi ci mi ngi ci biir dañ koo dëraale laa lay wax nii am nañ ci naqar lool lool lool lool lool wax dëgg yàlla am nañ ci naqar moom que jigéen ngay daan fi sa doole ban message ngay lancé pour autorité yi. koy euh, lancé message boo xam ne bii man xam nga mag la mais ay jeunes yi Petersen ay jeunes kese ñoo fi ay xale kese kese ñoo fi ne. billaay wallaahi wa taala barke Cheikh naa Cheikh Saad fii laa gis ku jaay ba 10 heures wéef paas wéef wéef dépasse fii xale bu góor day jaay ba 10 heures wéef dépasse da nga gis ko or yor ordonnance yaayam nga ne ko ma soqee wala boo yor soqee ko ma 10 la sama yaay ordonnance petel gi la am xoolal li yow nga gis nga doo fi gis ay jeune fi gis gisoo mag ñun ñu ñoo fi seen i seen i yaay mais ay xale rek nga fi gis nag bu ne da nga da ngay jàppale jeunes yi kay emploi mais lii kay du emploi dëgg ca la du jàppale jeune tey ji waxuñu leen benn lieu boo xam ne kat fa ngeen di dem. ñun waxuñu ñu benn lieu joxuñu benn lieu waa joxuñu ñu lieu waxuñu ñu wax waxuñu ñu lieu ah waaw fii nattu tabaski am na fi pombiteer ak soble nattu suukar boo fi ñëwee samedi samedi samedi ci suba boo xëy see di ma fekk fii ma rangale suukar di séddale. da ngeen di ay natt. man maa ko yore samedi boo fi xëy si woon di ma fekk ma rangale fii suukar ak meew samdi incha allah di ko séddale. di séddale pomme de terre di séddale soble lu ne fi am ak nattu xaalis jàppalante moo fi am fii jàppalante moo fi am waaw wóor na yàlla solidarité nag ñu ngi dégg ci seen wax ni bu état réagirul ñoom kat dinañ utal seen boppu solution en tant que seen yaay naka nga leen di conseiller man bëgguma xeex moom non violence solution mën naa am sans violence ndax violence moom defarul yàq euh, nu mu tuddati euh, yàqul defarul day yàq bëgguma violence nañu waxtaan ci dal état nañu ñun daal dañoo bëgg a yuuxu état dégg ñu am na site boo xam ne nag alin Ndoye mi nga xam ne mooy maire de Dakar fii moom la tabax nee na pour ambulant yi site boobu la ñu bëgg mu accéléré ko ñun ambulant yi ñu dugg ci biir fii dootu fi gisati kenn mais site boobu bu pare woon tey doo coow du am mais site boobu parewul liggéeyuñ ko mais loolu mooy sunu problème fi mu nekk nii loolu dong mooy sunu problème. fan yëpp yéen a ngi toog defoo leen dara. dara dépasse xale yi xam nga ne mos ku doon kuy liggéey dina toog fi di xooti xooti carton buñ liggée liggéey boo fi ñëwoon heure ah, waaw xam nga jaay doole moom bu amee rek mooy loolu ku la te loo bañ looy bañ ku ne ku la ëpp doole ma la doomu adama lu muy bañ ku ku ëpp doole ma ko tegul comme que moo ñu ëpp doole teg ñu ko tam ñu teg lépp ci loxoy yàlla rek waaw loolu dong laa si gis. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yow yaay délégué fi nga xam ne mooy marché potentiel. man la Dame Badiane di délégué marché potentiel voilà. Euh, naka nga yégee ni dañuy ñëw saccagé fi nga xamante ne mooy seen magasin yeeg table yi. man mën naa wax ne en tant que yow soxna laaj mën naa wax ne ni nga ko yëgee rek laa ko yëgee en tant que responsable yi ni ñëwal seen bopp yi gis ngeen fi li fi nekk ci ay doomu aadama ay junne junne ni Petersen moom kenn du ko wax Sénégal Sénégal yëpp xam nañ Petersen xam nañ lu nekk Petersen ak ñi fi yëngu ak ñi fi daan seen doole ak économie bi nga xam ne mu ngi koy def ci réew mi. si mën a benn économique bi ne mooy kon ne xam ne ne réew mi jamono ji ñu toll ci situation yi métti la ñuy dund si ngeen gisee àll bi temps yi doxul euh, baykat yi doxul bi ngeen demoon Saalum wala Bawol wala fa mën dem ci àll bi seen doom yi ñu seen loxo jot seen gannaaw seen doom yi ñoo nekk fi di liggéey di leen dimbale ca kër gi kon ñooñu boo leen rey nga kër gi te doon dañ ko war a suuraale ñun dañoo bokk ci réew mi bokk si ñuy doxal réew mi te amul lenn lu ñuy def suuraale ñu ci te dañ ñoo xeeb ndax xam nga ne lii gisuma lu gën a ñaaw li ci àdduna amut ta ta ta ta ngay jullit pour mu wax la rek benn affaire ba corona amee président oote man Dame Badiane maa njëkk a yëkkati un million yóbbu ko ministre de la santé kon xam nga nu ko bëggul yàq damay wax ne toujours ne BRT bii ñun accepté nañ ko bëgg nañ ko ndax xam nañ ñoo ci dugg ak suñu doom mais dañu woon BRT bi fépp mi jaar képp kum laal danañ wax ak yow utal la solution utal la fooy dem wala loolu wala ñu demoon ñu ñu aménagé nga dem ñu dee démenacé la utal la fu la yóbbu mais loolu yëpp amut. mais yow en tant que délégué joxuñu la benn app boo xam ne nee nañ la carrément boo leen fi jugul yow ak ñi nga àndal dañ koy daaneel amul benn papiye boo jot. joxuñ ma benn papier joxuñ ma app joxuñ ma dara xam nga lu ma am dimanche bi ñu génn euh, dañ ma woo te ñu ma woo waa marché bi la ne ma. Euh, waa Senelec ñëw nañ fi bépp compteur bu fi nekkoon buddi dinañ ko ma ne loolu nu mën a nekkee ma ñëw ba ma ñëwee ma fekk effectivement lu ñu wax dëgg la ma woo préfet bu Dakar moom ci boppam ma ne ko lan moo xew mu ne ma lan la ma ne ko damaa ñëw fekk bépp courant bi fi nekkoon dindi ko mu ne moom moo joxe ndigal pour ngi dindi ma ne ko ñun lu ma jaaxal moo ñun dañoo waxagu dara te man liggéey bi gis nañ ne mu ngi yegsi te ñun ba léegi kenn waxaguñu dara te gis nañ ne ñun ci lañ bokk dégg nga mais ba léegi taxuñu ba xam benn information mu ne léegi bu subaa ngeen ñëw fa bu euh, lundi kii bokkoon na ci euh, bi ma xam ne yóbbu woon naa ko bañ demee ñu bokk toog waxtaan mais benn solution bu fi génn amut fa lañ nekk quatre heures ba ba sept bañ fi jógee daal li wax mooy bi ngeen demee jël leen seen bagage yi dañ koy dañ koy dañ koy dindi. ba mu ñëwee fekk na gars yi ñu bëri wàcc nañ ma ne gars yi dama leen ngi nii ba suba ñu seet nuñ ko lijjantee min wi lañ ma woo na ma yi ñëw nañ fi di daane bagage gars yi ñëw ñu si bari dañ génne seen bagage si guddi gi ñuy sàcc ko ñuy jaxasoo yàqu te loolu wur wuru am ñun dañoo bokk ci réew mi nekkuñ duwuñ ay yàqkat duwuñ ay baadaloo duwuñ ay dañoo am ay solution yoo xam ne état bu ñuy dégloo ñu mën nañ ko tegal solution boo xam ne bu ko defee Sénégal yëpp am jàmm ndax réew mi laajatu fi ne dal la dal la te lii ñu def nii fa jëm neexul de wax naa leen ko de te am loo xam ne bu amee buñ ci buñ ci procès Dame Badiane du Dame Badiane de njaboot gi ñi nii mënu ma leen a téye naan leen muñ leen te amul benn rop-rop bu teg ci yow pour nga mën leen a muñ loo nit boo koy muñ loo dafay am loo dafa am loo koy muñ looyee nit ki ne boo ko joxu dara yaakaaru dara doo ko muñ loo dara. naaw bi ñu tojee seen magasin yi yàq taabal yi ne leen carrément BRT BRT bi moo fi jaar kenn joxu leen lieu boo xam ne ne leen leen fii lañ leen di teg pour ngeen jaay. ba léegi loolu amagut amagul benn autorité bu taxaw na kaay leen ñu waxtaan ñu def lii amagul préfet muñ ci waxtaanee ne ko néew moom dafa maanaam saaru tëkk la wax ak ñun tëkku la te ak njaboot nag mënoo leen yor ñu nekk ay problème pare dalaloo leen di leen tëkku te kilifa joxe noonu ak lu mën a xaw ñoom ñooy suñu kilifa mais njaboot gi ñooy seen kilifa te leen gestu te nañ leen bàyyi xel man li ma jiitee xam naa leen bu ñu amee seen jàmm di liggéey da am seen am seen wéccet lijjanti wuñ kenn yoon seen yoon nekku ci kenn mais nit ki ne mënoo ko kañ teraanga ma pare ne du ne di wax te nit ki nag boo ko mënoo aw béy mënoo ko te rend ko pare ne du yëkku ñun ak ñoo rende ba pare nañ ñu béy danañ yokku danañ yuuxu danañ danañ wax wu yaay yooyu ndax coono yi yi ñuy dund ñun rek ñoo ko xam am nañ ay solution yoo xam ne bu ñu ko defee ambulance dañ am jàmm am nañ fi ñaari site benn site bi monsieur le maire Aliou Ndoye mu ngi koy defar boobu euh, buñ bu pare woon ambulance yi di mën a ñëpp mën nañ cey dem mais lu ci ëpp danañ ci mën a dem mais ba léegi pareegul te waxaguñu dara te léegi ñun fi ñu taxaw xamaguñ ko site bii nii lii nga gis nii ci gannaaw yëpp benn ba yàlla boo xam ne bu ko président jàppale woon ba jox ko ambulant yëpp mën nañu dugg li boobaa problème ambulant day réglé wu ci Sénégal ba wax naa ko préfet la ma tontu mooy foofu yëfu jàmbur la ma ne ko si préfet mu ne ma naam mu ne ko bertee ba mu béyee ko géejooy ba fii fu mu jaar yëpp alalu jàmbur la te ba ngeen ko soxlaa da ngeen koo jël la ngeen wax alalu jàmbur la ku moom fii moom moom fii te bañ soxlaa luñ soxla fii ci borom kër gi dañ ko jël te moom toj ko kër gi fee la yemoon te bañ ñuy soxla dañoo ñëw wax a borom kër gi jël ci liñ ci kon ñoom te moom fii ba moom fële luñ daba jot fii toj ko bu ñu waxee ak moom danañ récupérer fee toj ko mais loolu yëpp amul ñun lañ boole wu ci askan bi. ban appel ngeen di lancé jamono ji. appel bu ñu dee lancé mooy malien yii gaar bee ku ne xam na ne malien ya fa nekkoon bañ leen fa jëlee dañ leen utal marché bu baax marché bu ñu tuddee ko marché malien léegi li tax ñun ñu dëkk ji dëkk bi juddoo fi yoroo fi màggee fi suñu lépp nekk fi ñu ne dañ bàyyi gaal ñu dugg na xale yi liggéey léegi xale yi liggéey na ba am seen am dara nga koy leen ko na sama yoon nekku ci yéen xel mënti nen dégg naa nag si préfet plateau nee na ambulants yi ñoom ñëpp day démarché nañ leen man Dame Badiane maa wax ne képp ko wax ne ambulants yi day démarché nañ leen jox nañ leen xaalis bi waxu dëgg. kon leen dara. kenn di joxuñ ci benn dërëm kenn waxut ak ñun te loolu mooy le clair Dame Badiane moo ne képp ko wax ne jox na leen benn dërëm na ñoom man ak yooyu def ko attention nga wax li wax fu ñu ko teg. booloo bu nekk fi ay junne junne nit fi nekk amul kenn kuñ jox benn dërëm kuñ ji wax ne jox nañ leen benn dërëm waxu dëgg man Dame Badiane maa ko wax loolu amul. président de la république maa ngi lay woo ñun am nañ ay solution duñu ay yàqkat kat wuñ ay baadolo ay nit njaay lañ xam lu baax te du ko def ambulant yi koo ji dem këram donc ko naw ndax ambulant lu mu ñemee amul kenn ko ko ñemee ay noobu lañ ay liggéeykat lañ ay jàmbaale fii góor a jigéen na fi nekk te ñoom ñëpp ñoo yor seen bopp nañ bàyyi xel askan wi soutenir leen jàppale leen te bàyyi jaay doole bi nga xam ne ñu ngi ko def nit ki boo ko waree kufri da nga koy kufri nga ko mais waroo ñoo toroxal ko yow yow mu ko yàqal alalam yaa ngi yor kenn ku nekk mbir bu nekk da ngay xool sa bopp ñoom préfet si préfet ñëpp laay wax kenn ku nekk yaa ngi nekk ci condition a ngi nekk ci condition yu baax booy xëy ci oto bi ngay dugg kilim la sa bopp bala nga yàq du benn doomu aadama nit ku nekk natt sa bopp si li ngay natt rek président na maa ngi lay wax nang ñu déglu ñu jox la ay solution nga def ko nit ñi nekk jàmm bu la mënta am sama yoon nekku ci mbooloo ak lu ñu mën a def na ngeen xam ne yéen yéenay responsabilité bi. bi maa ngi lay sant yàlla maa ngi fi. tur bi naka la. Thierno. Thierno da nga doon jaay fii ci Pétansar. waaw fii kay yàgg nañ fi depuis deux mille deux mille cinq deux mille six ba tey ñu ngi fi waaw da liggéey ba nekk si kii bi ñu yàqal la. donc c'est pas la première fois. est-ce que bii du sixième fois. di yàq rek day dem di fortaatu ñëwaat kiiwaat xam tamit loolu tamit dafa neexul ko di yàq. ñoom ñoom ñoom joxuñu la xaalis bi ngay liggéey. joxuñu la xaalis fi yoroon magasin wala table. non ñun table lañ fi yor yor suñu lépp xam rek c'est si lañ doon table si lañ doon suturloo tamit de waaw si lañ doon sant. bu yi dañuy ñëw toj si ci dimanche bi jotoon nga yëkkati say bagage non ñun suñu bagage moom jël nañ ko quoi mais dafa neexul tamit xam nga ñoom ñu jël ay bagage xam nga nga daaj mbaar fere si xaalis weer tal ñu ñëw rek kii ko joxuñu la xaalis avertir ñu la si guddi lañ ko def ñoom fekk ñëpp tëdd nañ maanaam jëw lañ ko def quoi bàyyi ba ñëpp tëdd ñëw ñu ñëw yàq. jamono ji ba léegi waxuñu leen dara lu leer. dara waxaguñu ko ne ba tey nag suñu délégué mu ñuy calme te ñoom xam nañ ñun moom wax dëgg yàlla moom si ndigal la ñuy wéyee mais lu lu ëpp tuur daal parce que saa mu ngi ñuy calme toujours di wax ay bu leen kii bu leen yëngal ba tey nag ñoom trouvé guñ solution parce que li xam nga dafa ñaaw. bu ñu trouvé solution joxuñu leen lieu bi nga xam ne fa ngeen war a daanee seen doole naka ngeen di def. no bu boobaa moom wax dëgg yàlla moom ñoom lépp lu ñu gis lu ne rek ñoom ñooy responsable comme Kéloum la parce que ñun moom nekkuñu fi di yaa ngi dégg nekkuñu fi di toog di xaar xaar yàgg ak yooyu noonu ñoom ñooy trouver solution sinon ñun ñu wan leen lan la parce que ñoom xam nañ ñoom xam nañu bu baax parce que ñun moom bu desee bu si ñun rek day métti waaw bu desee si ñun ak ñoom rek day métti parce que ñun lii du première fois waaw ñun na ñu ngi toog di leen xaar délégué mu ngi naan calmer leen def yëngalaguñu ñu mais bis bu ñu jógee rek ñu xam ne ñun jóg nañu comme ñoom nañu trouvé solution balaa ñun ñu jóg lu leer laa leen tegal nag. merci beaucoup voilà.